Thank you. 8h43 la tenue ici ti si ci euh, euh, RFM matin nous daldi di euh, ci profiter rek souhaiter une excellente journée à Fatima Silla Madame Bourgi ak itam Marem Babakan euh, de la part de Yaïkan euh, Diallo, d'Ali souhaiter également un joyeux anniversaire euh, à Abisili de la part de Migi Maram Ndiaye. bu Fekentene Abdoulaye Diop revue de presse Bicon, kon nous ñu daal di ci ande kon ak Mamadou Mohamed Ndiaye ci est maa ngi lay nuyu Ndiaye. maa ngi lay delloo nuyoo. Anna. waaw maa ngi sant bu baax a baax. tey sa liggéey bi dafa xaw a am tuuti jafe-jafe. ci man la wala seen machine yi. dafa mel ni euh, ci euh, réseau bi la. fu mu ci mën di doon daal waaye du ci man loolu daal la bëgg mu leer. xam naa ne kenn def nga sa liggéey. <laughs> ba yaa ngi ci jàmm. jàmm sant yàlla bu baax Eh, nuyu naa la nuyu auditeurs yi maa ngi gis eh, fële ci technicien ya ñu lay def signe hmm. ma bëgg xam nooy doxale da nga may bàyyi ma doxal wala ndax da dama lay bàyyi nga doxal laata ñu déedéet yembagul gisoo kon ma doxal waaw ay ca xam nga démb maa ngi la ko doon expliquer mm-hmm. benn mbir bu doy waar bu xew ca diwaanu Thiès mm-hmm. eh, Cheikh Anta di kon ci ak ñun benn xale bu jigéen boo xam ne moom yàlla da koo dimbale mu def art martiaux mm-hmm. am benn waay bu ko doon jéem a agressé nga sa xarit bi ndaysan docteur Massamba Gueye li wax neena na mm-hmm. fa gaynde bo fa ki domam fa le medd yam manam ah, di agressé nit dem di agresser nit fekk mu jang tay kondo ah. ah, kay moy manam fa la yef ya mën a yam mm-hmm. eh, élément boobu laa la bëgg jox agresseur bi nak da baye ba xamne goor góor nekkul ci kër gi ndax xale bi ki niñ ko waxee yaayam dafa dem màkk mm-hmm. papaam nekku fi manam dal mom xale bu jigen ben étudiante la mom mo fa nekk di nga ko deglu ci kanam mais avant ñuy sori bëgg naa laa jox benn information xalaas express xam xalaas express du dem leeralal naa la leeral nga ma ko voilà <laughs> yaa ngi fàttaliku ci jamonoy tabaski gi am na mbir mu doy waar mu xewoon fa nga xamante ne ji moo di ca diwaanu Thiès mu di euh, abu lëy benn jaaykatu xar boo xamante ne ji ay bandi ñoom ñoo ko faat ci bésu tabaski sax lañ ko faat mm-hmm. ba ñu defee loole yamuñu ca ndax dañoo jël juróom-ñetti xari laadumam laadum mooy bokk na ci xar yi merci beaucoup mm-hmm. raasu xar yi ñu gën a wut mooy mm-hmm. xaru laadum cher xamante nañu dafay yegg ba un million yooyu ñooy xaru laadum mm-hmm. gars yi jël juróom-ñettam ak xaalisam ba noppi rey ko tegal ko ci ñi def loole ñu naan présumé coupable merci beaucoup am na koñ ci jàpp comme nag enquête baa ngay wéy nañ yem rek ci sant bi en tout cas soow la sant. Mhm. waaw ki ñu jàpp ki ñu jàppagum. du kenn rek. Mhm. kooku Cheikh Anta moo ñu ko jox ci xalaas express boo gisee jouru tabaski Abdoulaye mi ñu faatoon. Mhm. jaaykatu xar la woon yóbbu ay xaram ak xaalisam. police ma ngay def enquête ak gendarmerie maanaam waa yoon daal am na kuñ ci jàppagum. anna xalaas ma loon jundu sànq duma ci sore nañu njëkk a déglu nijaayu xale bi ak xale bi ci boppam. ñu déglu nag Cheikh waaw moom léegi euh, moom fii lañ ko fekk ci néeg bi agressé ko jigéen la. waaw jigéen la bon c'était vers une heure du matin. Mhm. bon man man dama dégg rek lu teel xaw ma teel bi lan la ma defoon sama kër la. Mhm. bi ma jógee ma xool xool gisuma dara même pas trois nag comme man maa nekk euh, ak ñoom may samay jarbaat la sama lépp lañ lépp lu ñu ci kër gi maa koy def. Mhm. man rek lañ fi xam ma daw bi ma dawee bi ma bi kii euh, ban bi génnee daw di ma tudd naa ma <laughs> jam nañ ko jam nañ ko jam nañ ko sàcc baa biir kër gi jam na ko. ci laa dawee. ñëw fekk y avait du sang partout. lu mu ko jam paaka. xaw ma paaka la ko jam xamu ma jaasi parce que mom xamatu parce que mom da doon xex ak mom parce que ku fekk mu tëdd mu xoj ko ci lal bi. ndaw si ar dafa def art martial quoi. ndaw daf ndaw si daf ko def mais bi mu ko xojee ci lal bi xam naa ndaw si xeex ak moom. Mm-hmm. xam naa jam na ko jam bu metti daal ba ci bët beeg yooyu ak loxo yi. Mm-hmm. léegi ndaw si nag fexe bi kii tàngaay bi jàppee mu daw nag di ma di ñëw sama kër pour. pour mu sauver pour wallu mm-hmm. ak ñoom ñëpp bi ñu dawee di ñëw sama kër nag pour wallu bi mu ñëwee ci tëdd néew yeetul na parce que elle a perdu beaucoup beaucoup de sang. Hein? parce que gis naa deret ji nii boo yéeg ci kaw escalier ba ci chambre yëpp deret la. waaw après ci laa demee nag euh, ci lañ demee woowi sapeur mais diggante bi mënatuñu woon xaar sapeur mu ñu sapeur na effectivement teel nañ ñoom mais mënatuñu waxal parce que ndax si nooyeetul woon. Mm-hmm. dama obligé jël sama oto en urgence daw yóbbu ko hôpital. Mm-hmm. bi ma hôpital aussi bi hôpital taxaw nañ ay cinq minutes di ko réanimé mais mënul mënul noyyi mënul noyyi lu nekk la docteur bi def mënul noyyi mais yàlla def na ci am ba mu noyyi mais gaañ na ko gaañ metti kër gi yëpp deret la. Mhm. vraiment dëgg moom moom moo war a nekkoon ci kër gi. naan moom moo fi nekkoon moom mooy taaw. Mhm. ak euh, la bonne ak ñaari xale de 14 ans 10 ans. Mhm. ñoom la ñoo fi nekkoon. xam naa ne sàcc dañoo xam ne ne kër gi ay jigéen kese fi nekk. waaw xam naa seen yaay daf fi nekkul dafa dem seen yaay daf fi nekkul daf fi nekkul.

Euh, mun ñu ko mel nee na mënu ko xam parce nee na daf ko fekk mu tëdd. mu xoj ko mu xoj ko fekk ñoom tëdd ñoom tëdd nañu ñu mu xoj ko loolu moo tax. mais mais nu mu def ba dugg ci biir parce que kër gi euh, porte bi euh, défoncé ko yombul de. loolu moo jaaxal ñëpp nag moo jaaxal ñëpp. moo jaaxal est-ce que ñëwul dugg si kër gi ñu tëjaale ko ci guddi gi. voilà loolu nag lañuy wax ñëwul dugg ci kër ñu tëjaale ko ñu ngi imp aussi ndax amul koo xam ne kii xamul ni ñoom dong ñoo fi nekk mu ñoo def loolu. parce que comme ay xale jigéen dong nekk ci kër amuñu âge ni góor a ngi fi ñu def yooyu xam naa peut-être loolu aussi mën na ci jouer. Mm-hmm. am na ay ay kii yu fi am depuis. Mm-hmm. cinq à jours. Mm-hmm. am na ay peintre équipe de peintre bu fi nekk di peinture. ci biir kër gi ci biir kër gi. est-ce que ñooñu ñoo toog noonu. mais ñooñu est-ce que bon police war nañu euh, def ah, enquête mais ñun suñu devoir ñun woo nañu police police ñëw na avec seen L200 avec leurs éléments parce que kër ga comme ñaa dafa am ay chambre ñun leen nañu vérifier ñun leen nañu xool se def seen liggéey xool ba xam aussi ndax sàcc bi nekkul tëjuwul ci chambre yi après man booba nan nekkatuma fi parce que booba maa ngi jéem a daw du yóbbu sama jarbaat bi pour hôpital pour ñu mën ko toppatoo ma bàyyi fi nag population kii bi nu mu tuddati voisin yi ñuy toppatoo loolu fi dëkk bi metti na metti boo xam ne fii kenn amatul sécurité ci fi ci Thiès insécurité bi metti na metti na nit ñi nelawatuñu donc nag malgré que loolu nag il faut ñu jëlaat ay matukaay yoo xam ni toogaat waxtaane ko seet yenn matukaay yu wóor yoo xam buñ ko jëlee ba naan population mën a neloo ci ci suuf ba ci kaw yëpp ci ñoom mais actuellement ndaw si mi ngi hôpital ndaw si biñ biñ demee hôpital def nañ lépp dañ naan dañ ko téye mais yàlla def ma naxtaan ak ñoom ba ñu indil ma ko mi ngi sama biir kër fa la fala fala fanaan mais mënul wax fi ne mi ngi wax mi ngi wax mi ngi wax moom dafa la dafa la fekk si si néeg bi waaw dama doon nelaw jékki-jékki sentir loxo bu ma xoj ni ma soo yuuxoo dinaa la rey enfin ma xalaat ku ma ne soo yuuxoo dinaa la rey j'ai bien imaginé que war na yore arme ci loxoom comme mi ngi jàkkaarlook man par instant ma ne peut-être qu'il est droitier sama loxo gauche ma jàpp sa main droite ci laa xam ne def na art martial quoi waaw def na art def na karaté def na taekwondo j'ai senti que am na arme la xawma en tout cas c'est une arme blanche. mom la la si loxo. bi ma ou bien mais je me débattais contre lui. Mhm. parce que j'ai préféré mu que mu sur le terrain. ci biir ak je me suis battue avec lui. Après, j'ai essayé d'alerter tout le monde. Après, mon dao. Je sais pas par où il est passé, homme. Je l'ai pas vu, je l'ai pas reconnu. Je dormais, la chambre était sombre. Mais fi dajji ko jafe na xamuloon ndax da ko tëjaale ci biir kër gi wala daf fee teel a ñëw dugg ci kër gi. peut-être que dañ ko tëjaale. parce que buntu bi moom kër gi am na sécurité parce que buntu bi vous yi am na ñaari porte. porte double porte la. double porte la porte d'entrée bi ak beneen porte salle bi yëpp dañ ko tëj caabi ko man maa ko tëjal sama bopp. j'ai tout fermé xaw ma nan la def ba jaar nee nañ peut-être dañ koo tëjaale ci biir je sais pas xaw ma man xaw ma. Après, lorsque j'ai essayé d'alerter tout le monde, il est sorti. Il n'est pas repassé par la porte principale parce que bi muy la porte principale bi kenn tijjeegu ko. kon est-ce que tu tëbul kër. peut-être peut-être. mais dafay niroog ko ku xam kër gi la. ku xam kër gi lay niroon. amu leen benn indice que ku leen dana ñëw ci kër gi leen seet indice la wala. non franchement je n'ai pas de suspect.

loolu de am na waaye ar martiaux di daw martiaux ru ko gën a kii wóor. ah mais moom dañ ko fekk fu mu tëdd. waaw mais loolu la moom yàllaa ko muccee rek. waaw yàllaa ko muccee rek. Ablaye ana jëngalu xalaas bi wala boobu daa bokk ci machine bi kii. da ñu andi leneen tey wala. danga bëgg mu dulaat beneen. waaw ah, laata ma def euh, revue de presse bi. ah déet tuuti ma. Mhm. jël pepp jël pefe nag mënut ta nekk. moom daal yaay choisir entre nga dóoral auditeur yi revue de presse bi. Mhm. kon bàyyi ma tegal leen revue de ah, presse bi nga denc li nga li nga am yëpp pour suba incha allah. ma yëpp kay nag doo mun ma ko denc pour suba. <laughs> revue de presse bi xam naa ni nga koy mooy médecin après l'enterrement. déedéet jeexagul. <laughs> jeexagul waaye ca kon wuy ma. neuf heures jotagul. waaw waaye ca wuy ma. Euh, Anna. Mm-hmm. bay bu su bu ñu dóoree mel mais amna mbir moma ma seetlu o mm. ma xalaas la xaw ma mm. de tenue bu ñu duggé ci banque nañ leen di woyé falal ñu baña nek di rang mm-hmm. xam nga sul tenue ba paré taxaw ci rang da rafetul mm-hmm. ñom ño wara jubal rang yi motax nañu leen defal xawma civisme lay doon xawma ma lay doon xawma ay mesure lay doon mm-hmm. mais bu ñu ci banque wala yenn yi bo xasse ba sol tenue nañu dawal xel parce que nit ki wara gaddu sab karangé warul yag ci yenn lieu yi nañ leen di bayyi ku sol tenue bay bo bu fekke na nga nek am de tenue te solo tenue ñew don civil ah togal ya hmm. hmm. ci civil yi comme ñepp waye bo xasse ak sa tenue mu leer na yow ci activité nga jógee wala ta nga jëm nañ la bayyi bu dé bank la nga dem fayé ko genn nit bu yoré sa karangé ya, dang koy cëral gis na ko ci jamono ya tabaski gi bi taxaw sol tenue mu leer ma ne kii fi mu taxaw ni fi mu ne hmm. mi ngi tok rek di xaar ñu woko né ko kay rassemblement amna ñu leen di jappalé non ni ñi def pay ñi nga xamante ne ji personne troisième âge lañu. Mm-hmm. bu ñu ñëwee ñu leen gisee ba yéenay borom. Mm-hmm. fu ñu fekk nit dañuy dox nit ki xaaral ñu dem kooku ciir la bu ñu leen warloo Sénégal a noonu mais homme de tenue it nañ seet ñu leen ci boole. xëy na ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor banque yi fii dégg nañ la moo mm-hmm. Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu des ak yow euh, kon ci euh, lii ci yéenekaay yi gën a talaata ji